tey bëgg a dugg nag ci mbirum tabaski ak gàtt bi ñu tuddee doom ak xeeti ñam yi nga xam ne yàlla daganal na ku ko lekk tabaski sunna la ci ku ko mën te nekkul di aj màkka bu dee aj màkka moom addiyu mooy sunnaam kon nag koo xam ne armalul aju maam gi nag mooy at bi yëpp doo ci loruwaat ba soxla njëkk soññeekoo sa bopp ba nga xam ne at bi yëpp doo dem a dem ba sa dund bopp ba sa dund njaboot ba kontaan ba fu ngeen dugg jaaxal leen nga xam ne tey loole woon siiwal yore jëw tabaski ba def ko ca soo loolu sa bopp ne loola moom du la dal mbaa bopp bu amee day nekk rek dogal bu bette waaye yaakaaroo mu am kon yow mën ngaa tabaski sunu la ci yow su la wóoree loolu nag moom dana la dal ndax fi mu nekk sax jëkkoo sa bopp kon tabaski du sunna ci yow moom nag dañ koy def ngir sàkku tuyaaba nga xam ne ba ci gone akub dof su fekkee mën na ko rek bëgg nañ mu tabaski bu dee gone mbaam dof nag xëyoo des seen mbir boo leen wutal am tabaski toppatoo leen ko bañu leen ko na mu waree li tax mu wax nag góor daa fekk booba ñuy teqale góor ak jaam waaye léegi moom jaam amatul ñëpp ay góor lañu bu dee jamono yi teqale boobu amee nag góor rek lañuy sunnaal ci moom bu tabaski waaye jaam moom dañ ko moom ak la moom dañ leen a boole moom moo tax du tabaski day dema dem nag ba ñenn xeeti jaamu yàlla yi buñ toppee aadam mu dem a dem ba mel ne du rekk ak jaamu yàlla ndax tabaski mën naa am ci gone yi mbaa ci jigéen ñi mbaa sax ci mag ñi nga xamee ne mën nañu tabaski waaye yoruñu kër yoruñu soxna ñooñu di ci ëpp duñu tabaski te fekk na jaamu yàlla la ñooñu ñëpp ku ko ci mën rek sunna la nga def ko ngir sàkku ca tuyaaba ndax la addis ba ne ku tabaski am di caag xol bu set di ci sàkku tuyaabay yàlla maanaam bëgg yàlla defal la ko tuyaaba bu ëllëgee tabaski ma mooy dox suñu gënteeg sawara bu ëllëgee ba nga mucc la ñuy tabaskiyee yoon mooy wax na war a toll ci dund ba mat tabaski bu dee xar moom su amee ak mat rek doonte benn fan la duggee ci atum ñaareel ma it baax na bu dee bëy moom dañuy bëgg ma am at ba dugg ci atum ñaareel ma dugg bu fés mais ne weer mbaa ñaari weer la ñuy tabaskiyee mbaa la ñuy def addiyu bu dee gëleem mbaa nag nag moom na am ñetti at ba dugg ci atum ñeenteel ma doonte sax benn fan rek la ca duggee gëleem itam na dugg ci atum juróom benneel ma doonte sax benn fan doom la ca duggee lan lay doy day wax nag sikk yi nga xam ne mooy tax loolu du mat tabaski du mat addiyu bu dofee dof ñu ko nit defe ak jur mën na koo def su xasee dof rek matatul tabaski ba tey bu dee dafa luur du ma def tabaski luur nag mooy bu dee lu mel ne nag mënta naan wala bu dee xar mënta meem wala bëy looy xam ne mënta meem kat boo ko yàgga dugg dal fekkee amewu ko rek ak luur la du ma tabaski bu laajee itam du mat tabaski su bët ba partee rawaatee na ñaar yépp mel ne kon dafa gumba du mat tabaski ba tey nee nañu bu fëree fër gu ëpp te loolu mooy biir bënn yi fóota daan ndax daa lekk lu mel ne per bu yàbbal ba leneen loo xam ne daal tax na biir ba ney fóota daan kon ba tey mënatul tabaski te bu doon fër gu ndaw rek fër gu ndaw rek moom du ko tee mat tabaski ak bu giniñ nga xesewee bu gin nga amee xet bu naqari daal day manqué tabaski bu geen ba ca gannaaw daggee te la ca dagg bari nga xam loo ko defoon ñetti xaaj la ca dagg mat na benn ba kon du doy fekkoon am na ca dagg nag waaye boo ko defoon ñetti xaaj gi mat benn ba kon doy na bu raadee itam sikk la du mat tabaski nii bu yooyee ko ëpp nga xam ne amul yokk yax yi amul yokk ndax dafa yooyu ko ëpp ba tey du mat tabaski in zahara den feeñ na jéem wax salaa bi lay wane ne ci yëpp lay dellu la dalee ca ndox ko njëkk a tudd ci sikk yi ak yi ca topp ba ci làpp gi mujj a tudd làpp mooy yooyu yooyu yëpp bu doonee sikk su fés su ràññi ko ràññi ko la koy yàq ba du mat tabaski waaye su fekkee amul solo xëy na ci moom nii rek waaye amul solo mbaa sax da nga ko ci yeex a xàmmee kon boo ko tabaskee bu doy waaye nag na sikk say ñàkk ñàkk solo mu bañ a jaam bañ am benn benn sikk moo gën ndax demam lu ñuy jaamoo yàlla la mucc ca sikk moo ci gën su bant ba woowee nga xam ne amatul soow loolu mooy bant boobu ba tey kon du matati tabaski dañuy sàrt itam la ngay tabaskiyee nday nag bàyyi ñëpp bokk ci juri kër yi waaye su fekkoon ne bëy dañoo dem ca àll ba tase fa kéwél yi ñi jotee ñi góor ñi jigéen ñi jotee la cay juddoo moo tudd warale nga xam ne genn wàllam daa bokk ci juri kër yi genn wàllam bokk ci rabi àll yi loola du mat tabaski léegu ne nag te bu mu amee béjjën bu nàcc mu amee rek béjjën bu wérut ndax su fekkee ni béjjën ba nàccut waaye wérut it lu tax mu baax su fekkee nag béjjën ba dabboon na waaye wér na kon baax na waaye nàcc daal ñàkk gaa nàcc moom la ci am solo mooy rek mu wér te comme damoon na moom béjjën bu waaye wér na daal kon doy na tabaski doy na tabaski waaye nag bu béjjën ba dëmbut boo gën bu béjjën ba damm day wax ne bu dee ci tabaski moom na gën a baaxu yàpp mooy gën kon gàtt mooy gën ndax gàtt moo gën a baaxoo yàpp nag ak gëneel gàtt itam xar moo gën bëy boo weesoo xar bëy itam nag mooy gën gëneel ndax yàpp nag dafa gën a yomb a jariñoo gën a neex yàpp gëneel lu ñu démasqué lu ne itam la cay góor moo gën la cay jigéen maanaam bu ñu nee xar moo gën ci lépp lu ñuy démasqué xamal ne xar bu góor ma boo gën bu jigéen ma bu dee bay moo ca topp it bay wu góor boo gën bu jigéen bu dee nag moo ca topp it nag wu góor tabaskee ko boo gën nag wu jigéen gënee door a ñëw nag gënee bi gënee gu góor ga boo gën bu jigéen ga ba tey ba ñu tàpp boo gën ba ñu tàpp bu fekkee ne ñoo yemoo ak duubaay wala ba ñu tàpp gën a duuf bu fekkee ne nag ba ñu tàpp daa gën a duuf day daal di gën tabaski na nekk lu suur maanaam nekk lu duuf lu ñu soppa sopp la am na nag yooyaay bi waxoon ne moom mooy yooyu ba àgg ci amul yokk ca yax ya bu ko defee moom doyee tabaski waaye nag moom gën a suur rek gën a baax maanaam dañuy wax ne su kenn ku ne defee dara ñu jënd ab tabaski boobu du baax kenn dañu am tuyaaba ci ñoom ñu def loola mu ne nag bu fekkee ne kenn rek moomut am tabaski man naa yéene waale ca tuyaaba ja ak lim ci ay jege ñaareel maanaam ay mbokkam bi ñu sàkk ñu yem ci juróom-ñaar mën nañoo ëpp juróom-ñaar waaye nag loolu lépp ci kaw ñetti sart sart benn ba mooy nañ doon ay mbokkam buñ doon ñaareel ba mooy nañ bokk kenn kër guñ nekk ñetteel ba mooy mu leen di dundal boole ca doonte sax dundale ga yoon tegu ko ko moo ko coow réew rekk bi ca ñett sart yi dajee daal mën na leen yéene waale ca tuyaaba ja ñu daal di am ca tuyaaba ja mel ne ku tabaski waaye nag ñetti sart yi bu ca benn xëttee rek bu leen bëggee yéene ca tuyaaba ci tam du tax mu sotti mel ne ñoom ay jàmbur lañu duñu ay jegeñaale mbaa boog ay jegeñaale lañu waaye dañoo bokk te mu dëkk ci genn kër mbaa ñoo bokk dëkk ci genn kër waaye dundalu leen yooyu yëpp bu ñu bëggee boole ci tuyaaba ji tam du tax mu sotti nangu ñu nag mu beral boppam am tabaski yéeneel ko boppam wutaat nag meneen ci alale boppam yéene ko beneen mbooloo ni ki ñeneen ñi ko soxla bu yéene leen tabaski moomee nga xam ne ñoom la ko defal koy ñoom ñëpp daañu am tuyaabay tabaski doon sax dañoo woomaloon mën a wutal seen bopp tabaski tuddee tabaski wàcc na leen daañu am tuyaaba ja daa wax ne ñetti fan ñii muy bisu fukkee ak bisu fukkee ak benn ak bisu fukkee ak ñaar ñetti fan ñii boo jëlee rek da ngay am tabaski teewul nag rend ci bis bu njëkk bi moo gën rend ci ñaari fan ñetti sës su dee bis bu njëkk bi moom waxtu ren yow mooy degam ilimaan am na te am na tabaski boole ji walla kenn ren bi tey bàyyi ba ilimaan julli ba xutba ba ren bi su ilimaan amul am tabaski walla am na ko waaye àndaale wu ko ca jullikaay ba kon ku ñibbi da ngay toog ba tolloo ba jàpp ni ilimaan rek wane amul tabaski itam ren bi xaj na fi war naa ren bi ba noppi su fekkee itam am na ko waaye ko génnewut mu toog ba tolloo la ne kuy si ilimaan war naa ren bi ba noppi mu daal di ren bi bu rendee nag ndekki te jiitu na ilimaan it ci wàññi dara tolloo la rek ndax tali ba jàpp ne ren bi rek moo ko ca war waaye nag nattalee boobu nga xam ne moo ko ca war bu fekkee defu ko daal di àgg daal di leen di ba saasa rek kooku moom su jiitoo imaam baabu defandoo moom du doy bisu ñetteel ba nag bu jant ba soyee rek tabaski jeex na déwén rek lañ koy mënatee mën na biñ nee tey jii di àllarba mooy tabaski suba di alxames ba tey bisu tabaski la ajuma bisu tabaski la ba jant bay soog ci ajuma jël bu jant ba xasee soog nag jeex na déwénati rekk bis bi nga xam ne mooy bisu tabaski yi moom waxtu ren di woon dagam ilima am na moom nga dégg léegi muy ca yooyoo ilimaan jullee ba xutba ba noppi bis ba ca topp nag di bisu fukk ak benn ak ba ca toppaat di fukk ak ñaar yoor yoor ba moo ci gën ci kuy rendi ku rendi ci guddi ga moom du doy lu ko nga yàkkamti yàkkamti ak lu mu gaawantu gaawantu na fa ne fekk bu njëkk guddi gi jeex ba njëkk bi tàmbali mu doon rendi waaye bu rendi njëkk fekk bu fajar moom du doy day mel ne tabaskiwut faaw rek na bàyyi ba fajar fekk te la ci gën mooy sax mu bàyyi ba yoor yoor loolu mu wax nag ci tabaski loo ngi wax ci addiyu li ñu wëtee mooy addiyu moom bu dee bisu fukkeel bi dañ koy def ci gannaaw bu ñu sànnee jamare ak xabaar ba noppi ndax ñoom ñee aj du ñu sunaa ci yow ñu julli julli tabaski sànni nga jamare ak xabaar rek mooy ci seen julli tabaski bu ñu sànnee jamare ba noppi nañuy rendi bis ba ca topp nag ak ba ca toppaat ñoom ñee def adduñu foofee ñu bàyyi ba yoor yoor moo gën waaye nag su fajar fenkee rek waxtu rendi wi tàmbali na diiri nag ba jant ba soob guddi ga rek du kenn mënta rendi